asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi tudd Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS ñu ngi leen di sant ci seen wuyusi bi ngeen ñu wuy ci suñu point de presse bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey ñu dajawaat fi beneen yoon comme ni ñu ko baaxoo def di alerter di yëgal ñi nga xam ne ñooy kilifa yi que ñu ngi aw yoon woo xam ne jëmul kër fa mu jëm kenn du ci gañe yàgg nañoo nag euh, wax alaftu autorités yi ci ay jëfin yoo xam ne ñu ngi koy jëf jëmale ko ci suñu liggéey te loolu nekk ay jëf yoo xam ne li muy indi mooy ay jafe-jafe ci ñun te bu ñu amee jafe-jafe rek mu wàcc ci askan wi yooyu nag bari na waaye li ci gën a fës tey mooy benn prélèvement bu ñu tuddee PC prélèvement de conformité fiscale bi maanaa dañu wax ni ñun ñu impôt wala boog lu ëpp ci ñun ñu impo ñi ngi importer ñu impôt kon dañ leen di dagg impo bu toll ci 12 virgule 72 jëm 16 32 ci conteneur Euh, nekk en règle ak li nga xam ne moom mooy fiscalité bi loolu nag ñun jàppuñ sax ne impôt la même su fekkee impôt lañ ko tuddee ndax li ñu jàpp mooy impôt day am gannaaw boo jaayee ba pare ñu koy tuddee impôt sur le revenu wala impo sur les sociétés wala nga nekk CGI wala leneen waaye impôt boo xam ne dañ naan la booy yegg si sa bagage rek ñu jël ko loolu ñun xamuñ ko ci impôt ci àddina bi wërngal këpp moo tax li koy tuddee mooy impo ci consommation et par conséquent loolu li muy jur mooy euh, faw rek kon mu feeñ ci li nga xam ne mooy njëg yi nga xam ne moom la ñuy jaay bagage ndax nag yàgg nañ ko wax xam nga ne li nga jëndee mooy sa pris de revient mooy li nga jëndee yokk say fere kon su boobaa booy jaay faw rek nga moy ci jënd li nga jëndee moy ko li nga jaayee ci ngay soog a xam li ngay am bénéfice kon faw panier ménagère bi mën koy yëg ko maanaam jëndkat yi maanaam kër yi moo tax jàppuñ na impôt la boo xam ne bu jaar yoon la parce que ci àddina bi comme ni ma ko waxee amu benn impôt bu mel noonu kon daal dafa mel ni dañoo jël ay impôt yu bees yu ñuy créé teg ko ci euh, ñi nga xam ne mooy consommateurs yi waaye dana sax nag tardeel sax nag liggéey bi nga xam wala conteneur yi ni mu doon gaaw a génnee loolu mën na ci am jeexintal ndax dañ lay laaj ay kayit yoo xam ne pour nga dajale ko loolu mën naa am lu muy jeexantal ci kii bi te loolu wuuteeg li nga xam ne moom mooy les accords de facilitation économique nga xam ne loolu Sénégal moo ko ratifié léegi nag li am mooy ñi ngi wax opinion nationale bi ñi ngi wax Sénégal askan wi ne loolu su amee ñëpp a koy yëg du commerçant du consommateur ñëpp a koy yëg moo tax nag ñu bëgg ñu ubbi ay waxtaan ci loolu naam dañoo wax ne nañ fay impo li ñuy bëgg a leeral ci kanam askan wi mooy benn commerçant en tout cas assis waxul na kenn warta fay impôt loolu moom na leer dañoo jàpp na képp kuy liggéey di amas lëf danga war a fay impôt li koy firndeel mooy sol nañ suñu dàll dem ci impôt tàllal ko suñ loxo pour ànd ak moom liggéey ci impôt yi nga xam ne suñuy membre dañ leen mën a wax ni nga xam ne noonu la ñuy def pour fay impôt loolu depuis un an ñu ngi koy def xam nga kuy def loolu ba ñu la fay impôt ñi ngi continuer tàllal suñu loxo ñu mën a ànd xool naka lañuy def ba assiette fiscale boobu ñu bëgg a yokk ñu ànd ak ñoom ñu yokk ko loolu day d'accord nañ ci waaye jël la 12 pour cent wala lu ko ëpp ci bu sa conteneur yegsee rek loolu la ñu wax it nag dañoo jàpp ne warta am ci réew mii kon lépp loo xam ne ñu ngi ko koy jéem a layele jàppuñ ne tegu na dëgg la ñëpp a war a fay impôt loolu d'accord nañ ci te it pare nañ pour collaborer léegi dañoo gis ni yëfis jafe na fan yëpp yéen a ngi dégg ñuy wax yokkute ay prix ba sax état ne yeey wàññi na 47 milliards ci ay recettes yu mu amoon ñun loolu naxe mbaay lañ ko tuddee ndax dafa mel rek da ngaa joxee ci loxo ndeyjoor jëlee ci loxo càmmoñ te la nga joxe la nga jëla ëpp ndax xam ngeen 12 ci conteneur bu ëpp na junni yoon ay 47 milliards donc loolu jàpp nañ ne ay naxe mbay la gannaaw bi nag am na ay événements yoo xam ne mi ngi suñu kanam di màggal di gàmmu moo tax bugguñu def lenn loo xam ne dana xajamal lenn ci euh, événement yooyu waaye dinañ nag wax ne d'accorduñ ci su fekkee yàlla dogal na ñu ubbi ay waxtaan ñu xool nu ñu collaborer ñoom ci li ñu bëgg ñu amal ko mooy yokk seen assiette SUTCAT pare nañ ci loolu waaye ci façon bi ñu ko bëgg a defee nag moom jàpp nañ ne du façon bu jaadu bu jaar yoon du façon bu jaadu ba tax na li ñuy wax mooy duñ ko mën a accepter su fekkee nag waxtaan woowu amut ndax dañ ko bëgg a wéyal gannaaw événement yi nag danañ dem ci beneen vitesse su boobaa nag ah fekk ñun li ñu waroon def def nañ ko euh, kon ñi woo encore une fois autorité yi ñu bokk waxtaan ñun de waxtaan ba ñu door yëguñu ko nee na ñu am na ñu ci waxtaanal waaye ñun yëguñu ko ñun dañoo mettre devant le fait accompli dañoo xëy xëy ñu génneel ñu not wax nañu nii lay demee buñ ko yëgoon danañ wax ne décision bi baaxul mën nañoo atteindre liñ bëgg seen objectif te duñ jaar fii kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, Aziz di wax ni euh, buggul benn yoon lii nga xam ne mooy Sénégal lii nga xam ne mooy suñu économie bi muy am jafe-jafe di jógee ci ñun waaye nag euh, buñ la tegee loo àttanul ah bu yàggee nag nga nga xoox kon loolu mooy li am ñi ngi sant ñëpp gërëm ñoom wasalaam